الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الردوان والتمكين ورضي الله عن بقية السلف وقدوة الخلف فخر الدين والوطن مولانا العبد الخديم أحمد بن محمد بن حبيب الله وبعد فيشعدني أن أتناول الكلمة باسم الشيخ محمد المنتقى الخليفة العام للطريقة المريدية حفظه الله تعالى ورعاه مرحبا بكم يا فخامة الرئيس وشاكرا لكم على هذا الإنجاز العظيم الذي يعد قفزة مهمة في السير بالبلاد نحو التطور والازدهار كما أنه خطوة عظيمة في تعمير الأرض التي خلقنا من من أجله هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها وهو كذلك عون معتبر للقيام بالأمر الوارد في قوله تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه فلكم منا جميع فلكم منا جميعا جزيل الشكر والامتنان على هذا الواجب الوطني الذي أنجزتموه وجزاكم الله عن السنغال وزيها كل خير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوك جيلو جي تادي بوك طالبي شي نيغالو الشيخ محمد منتخا ميغا خامني ما في سيرين توبا تاي سي كو سوف ني ñaar mu yag fi lol ta and ak wër ci kilifte fu rakam di jëwri jëm serigne sidou mbakem cheikh abdou ahad mi nga xamne mom mu teewal ko ci jataay bi jox ko kàddu gi mu wax ne nañ wax ci turam jotli kàddu yu sëriñ bi ak i cantam kon ci turu sëriñ bi président de la li Macky Sall sëriñ bi nee na mi ngi lay nuyu ak mboolem délégation bu mag bi nga àndal bépp di la dalal jàmm ci liggéey bu rëy bu am solo bii nuy dalaw tey muy Ila Touba di autoroute bi lëkkale Touba ak Ndakaaru te sunu kilifa gu baax ga Cheikh Sidi Moukhtar tegoon xeer bi ba tey jii ci dogalu suñu borom Cheikh Mouhamadou Mountakha ñëw ubbi ko ànd ak mboolem njabootu Serigne Touba gi di jéego bu am solo ci doxug réew mi waaye mu bokk ci li yombal sunu mission nun doomu adama ci kaw suuf mooy dundal ko waaye itam di dimbale di dimbale ngir nu mën a taxaw ci ndigalu sunu borom li mu wax ne fantashiro fil ardi wabtaxu min fadlillah ak li mu wax ne famshu fi manaakibiha wa kulu min risqihi te mooy nu génn dox ci suuf si wër xéewali gëstu njariñ yi ngir jariñu ci ak jariñu ci muy loo xam ne ci jamonoy màggal dana wàññi bu baax coonoy nit ñi sëriñ bi nag kon mi ngi lay sant bu baax di la gërëm mi ngi sant bu baax itam mboolem njabootu sëriñ Tuubaa gi ci wuy si bi ñu ko wuy si di nuyu itam mboolem ñi nga xam ne seen maam ya Serigne Touba la ñu àndaloon Serigne tofal leen mbooloo sëriñ bi naan mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm mboolem mbokk yi waaye di gërëm mboolem taalibe Serigne Touba ci seen teewaay bu rafet di la sant bu baax nag di sant bu baax itam mboolem ñu leen liggéey ak di ci yëngatu ba liggéey bi mën a sotti ni mu sottee ci dëkk bu tedd bi nga xam ne Serigne Touba da koo sos ala ususin mina taqwa minallaahi wa ridwaani muy gëm yàlla ak yaakaar ko ak xeeñtu ngërëmam ba yàlla may ko fi mboolem li mu fi bëggoon lépp Sëriñ Tuubaa bi mu sañc dëkk bi ay rab la fekkoon ak gott bu lëndëm këriis bi mu fi dikk wut suuf fu mu baye wurut suuf maam waaye dara toxu foo ni ñëw lu dul dundal diine ak jaamu yàlla bañ koo boole dara sëriñtuwaa daana wax ne li tax ma sanc dëkk bi mooy daw nit ñi ak daw li nekk ci loxo nit ñi daana wax ne li li tax ma fonk Touba ak Daaru Salaam te duma leen jamale ak feneen mooy sama yéene ju sell ji ma bi ma leen di sanc ñoo fi andi ngir dëbuwu fi suuf maam mbaa wut ma fi wut barab bu ma baye dama ko sañc ngir jaamu yàlla te def ko ci ndigalu yàlla aku tànnam sëriñ bi nag bi mu sañcee dëkk bi dafa ñaan suñu borom ne ko nanga ma may Touba mu mekk mu mel ne aljana وشعل الإلهي مسكن يتوب أبد مثل اسمها بجاهي خير من حبت موتح لب لني دي سوحلة بدون من جاك من أجنة كوسوف سرين توبا نيانو نكفي موهم كي ساهر باتن ودار إخلاص وصدق وورع ودار سنة ومن جن من بلع نيانو نيت مدن براب خم خم أغلير وشعل وشع البناء بناء علمي وعمل بسنة وحلمي واجعله دأبا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفاهم نيانو نيت يالا دفكو بارب خيول أقول سوو لو تدقن ورزق هجل أتيب الحلال في العصر واليسر على التوالي ولو أدنا ترتر أقلو مجفة جفة يالا دين دفل ورسقو ياتو تلو بفاو داخسرين توبا نيانا يالا دفل نكو بيك مكو نقر جمانو بيك خط خير خط خير جمانو ولي ينتهي day xus samaan waaye nag lu mu gàtt gàtt nu fàttali ko tuuti ci waxi Sëriñ Tuubaa daa waxoon ne dinaa leen ji danaa leen jàngal juróom benn mbir yee leen ci ñeenti tomb jàngale mu njëkk mi danaa xamal boroom xam-xam bi ak woroom xel yi loo xam ne ca dalil ak burhaan yu leer lay tegu loolu mooy nit mënta génn ñett ñi njàccaar silmaxa ak ku gëlëm mu ne njàccaar daa war ji di jiitu di jiite te wommate jëm ci yow njàccaar nag mooy ku mën a ràññee lu baax ak lu bon kooku nag moo mën a jariñu tey jariña silmaxa daa war di topp ci ginnaaw njàccaar fu mu ko jëmee mu aw fa silmaxa nag mooy képp ku mënta ràññeel boppam li baax ak li bon waaye saa su nongo wommatu ci ginnaaw njàccaar ci la tànni li baax bàyyi fi li bon kooku it kenn mënu ko tee jariñoo ki gëlëm nag daa war a laaj ñaxam ñu wan ko yoonu bu ko nangoo nopp lu nit nag na muy def ba jot ca la muy wut génn juróom ñi ki jug jëm ca la muy wut jaar ko ca yoon wa koy maye mel na kay dem ca jaba ngir yitte te yor njëg la ak ki jug jëm ca jaba ngir yitte te yóbbaalewul njëg ak ki jum ki jëm ca jaba ngir yite ngir yitteem te yóbbaalewul njëg te fas caa jot jaare ko ci randal ak ki jug jëm ca jaba te yóbbaalewu njëg naam waaye fas na fa daan dooleem ba jot ca la muy ak ki jug jëm ca jaba ngir di fa dagaan dong ak sàkku ndimbal ku jëkk ki ak ku ñeenteel kenn mënu leen a tee jot seeni aajo ku ñaareel ki ak ku ñetteel ki kenn mën leen a tax a àntu ci seeni ajo ku juróomeel ki nag bu dajeek ab tab aajo mën naa faju ba dëjëwal ak moom daal di sooy ñaareelu njàngale bi ma ci xamal ñi am kilifa ne kilifa ku ko am dangaa war a def lim lay digal tey moytu lim lay tere loolu mooy warteefu njaboot ci kilifa am lay warteefu kilifa mooy di digle ak di tere bu ñu defee ñoom ñëpp ñu ànd jariñu bu ñu deful jaanam wàcc mu jariñu lay loore dal ci seen kaw ñetteelu njàngale bi ma ci xamal ñëpp ne ci digle lu baax ak tere lu bon ci la lépp yiw di juddoo àdduna ak àllaaxira ci safaan bi ci la jëpp lor di juddoo ci àdduna ak àllaaxira ñeenteelu njàngale mi ma ci xamal kilifa yi ne am yërmaande ci njaboot gi moo gën ci ñoom di doxee safaan bi di xamal njaboot gi it ne topp seeni kilifa moo gën ci ñoom di doxee safaan bi juróomi juróomeelu njàngale mi ma ci xamal ñëpp ne ki sañ a digle ak a tere mooy ki xàmmee liy jariñe ak li di ko digle ràññee lu bon ak liy lor di ko tere waaye ku mënta ràññee lu baax ak lu bon luy jariñ ak luy lore kooku ndigalam ak i teram lu ne mën na ca juddoo juróom benn lu njàngale mi ma ci xamal ñëpp ne ki xam lii jariñe di ko digle xam lii lore di ko tere balaa am day tax ñi lay topp seeni xel di dal seeni xol di sedd looloo tax kuy digle baa muy tere war caa farla bu baax ba ñamu yilif seen xel di dal seeni xol di sedd mooy waral du ñu dugg fitna ak i rëngi-rëngi ak i ak i jaxasoo ak i yoqet mu des nag mayee leen ci ñeenti tomb bi ci jëkk mooy ku yàlla jiital teg mbir mbooloo mi ci loxoom kenn warul di xiiroog moom ak a ŋaayoo loolu ku ko def defu tooñ tooñ nag rëccu rekk ci juddoo ba ñaareel bi mooy ku jiit mbir yi kon ngeen am jàmm ak mucc ak noflaay te te ngeen moytoo def luy waral a rëccu ak jooy ndax boromam xel day téye boppam ba du dugg ci lay waral gàkk-gàkk ak i ndax-ndax di dij boppam ci njariñ yu koy jëral mbëtte mu sax bu faw moo tax waxi sëriñ Touba ji ñëpp ci war a bàyyi xel ndax ku ci tënku doo réer mukk te doo sànk mukk Serigne Touba nag suñ borom doxoo ko may mu tabax aw xeetu nit ni suñ borom bëgg ab jullit mel ne mu indi ñu projet mash tudde ko mashruul fawsayni moo indi àdduna ak àllaaxira moo tax Serigne Touba dafa dajeek contexte boo xam ne benn nitu yàlla dajewul ak moom ndax sunu borom dafa rocc ci loxo jullit yi doole yi àdduna ak mbootam teg ko ci loxo yéefar yi ngir xool la ñuy def ndax dañuy rafetal te delluwaat ci seen borom ak fi mu leen dëddal ñu war caa jaar wala dañuy jaar fa yéefar yi ànd ak ñoom ba fa sànku àdduna ak àllaaxira moo tax Serigne Touba bi mu ñëwee. limu def moy wóor nit ñi ci al iradat wal himma ta moy fexe ba yàlla gën leen lépp ne ko alquran waxe qul in kaana aabaa'ukum wa abnaa'ukum wa ixwaanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaaratun taxsawna kasadaha wa mashakin tardawnaha ahabba ilaykum min allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi wa jihad fi sabilihi fa hatta yati allahu bi amrihi ci nonu la Sëriñ Tuubaa yara ay talibem wax leen ne saxaaba yi ñooy seen bàyyi diine ci diine ji ci la defare wenn xeetu nit wu bees woo xam ne kenn mësula gis ñu mel ne ci bëgg yàlla ak pëstéef ak jikko ju rafet ak yar ak teggin ba mel ne yi ñoo wàccaat ci pëstéef ak yitte ju kawe Sëriñ Tuubaa nag li tax mu am ndam ci liggéey bu rëy boobu mooy yetti mbir yi bu jëkk bi ar ruuxaaniya ndax dafa fekk àdduna jëm jug ci almaada te mooy gëm matériel ba fàtte yàlla مجيلات خلي نمد لين جمر الجلا إلى الله بالقرآن والسنة التي هدني استرفت الكل والقلب خاشع الواقعية تما واتش بطل مني ولن تشيل دبوغ لي دونو لين دونو جعل لين باح الدين بنيمن كودونو تدل لين سرال خاتب الناس على قدر عقولهم ولن يشهد الدين أحد إلا غلبه لن يشهد الدين أحد إلا غلبه moo tax moo daa wóor nit ñi ci yërmaande yàlla ji leen xoole bëtu mbëggeen wa rahmati wasi'at kulla shay'in yaa maalikal mulki yaa man jalla an xawadin irham jamii al wara yaa haadiyan di radaa fexe ba musal leen ci doctrine alxadaasatu te mooy modernité fexe ba ñu mucc ci at taxrib te mooy occidentalisation du ñu am complexe ci seen gëm-gëm ak seenu col ak seen doxin dañu nuur li ñu doon te sëriñ bi wax na ne law te nasartu la daxatu naar wal ayaasu billaahi taala looloo waral ñëpp maase dëgmal sëriñ Tuubaa xam ne mooy seen njëriñu àdduna alaaxira allahu yansuruni wal xalqu tatbauni fil barri wal bahri zanifin bila darari ba ca topp mooy albasata albasatatu te mooy ñëpp koy mën a dund te du la sonal ñëpp ci mara jariñu amul kenn ku gën wa yastawi mubtadiun wa muntahi fii nafsihi wa xayruhu teg leen ci ashratul mustaqim ba képp ku bëgg ku ko bëgg aju ci moom mu garanté la àjjana àdduna ak laaxira te wax na ne lépp lu ma bind ni ma ko waxee ni la ko suñ borom dogale wa huwa lisi jaala ma katabtu kama katabtuhu wa ma kasabtu wax na ne sama lépp ak jaamu yàlla la wax na ni itam képp koo xam ne juyoo nga ak man suñu borom dana dana la alak li man lahu kulliyati ibada hamdi wa man xaalafani abada nee na itam képp koo xam ne yaakaar na ma suñu borom teyal na sa bakkan ci àdduna ak alaaxira taabat nufuusu man taallaqu biha dunya wa uxra zaaka fadlu rabbiha nee na suñu borom jéggal na képp ko aju ci man yaakaar ma waxfir li walidayya waxfir li jamii man bii taallaqu bi fadlin yaa sami nee na képp ko aju ci man ku yàlla suñu borom musal na li ci seytaane moo tax lépp lu fi yàqu rek yàqu bakkan la waa yàqu seytaane suñ tubaa génn na ju najjeytaman bi taallaqu maa min ash-shayaatini fa sukkur yasmaa nee na itam képp ku ko yaakaar dana tabbi àjjana kullu muridin bi yaluusu yasaadu wa innahu min al aza mubaadu moo tax ca gànnaa dafa xëy bis wax sëriñ Aliou Sey ne ko Aliou wool fere yi ñu daje ba ñëpp daje mu ne li ma leen di doye de mooy suñu borom damaa xamal ne dana ko Aliou liman ma ci yéen yam senegal gumlim rek sëriñ bi na ko googu ba mu yàgg sëriñ bi na ko li ma ci jund mooy suñu borom dama xamal ne balaa nëgëni si déwén danañu fekk ñuy delluwaat Sénégal ci ak ci yéen loolu nag li ma jublu ci wax waxtaan ko mooy dama bëgg ngeen xam ne lépp lu ma leen dikk ni ngeen di gise lii ni ngeen di gise loolu daane fii moo ko waxee ba booba nag ci kàttanu yàlla kenn du faatu boobu fekk na nag am na kenn ci taalibe yi koo xam ne dafa wér di ba ñëpp di ko xaaroo yaakaar dee faatu waaye suñu borom dafa def mu wér ba Serigne Touba dellusiwaat Sénégal ba ñëw ci yéen Jolof mu door a kon nag sëriñ Abdou Lahad waxoon na ne sëriñ Touba ñeenti mbir lañu gisoon mu itteel ko benn bi mooy diggam ak yàlla diggam ak alxuraan diggam ak rasulullah ba ca di Touba ñaanoon suñu borom saxal fi kaaraange mu ko ci lépp luy musiba te lépp lu mu fi ñaan yàlla suñu defar na ko ndax moo wax ne la hëwa habta maakafal xutuba fa suqlahu fawqa raja fii Touba kon tey bu nu dajee fii di ubbi yoon wii di Ila Touba te président makki Sall amal ko kon day dëggal ne la Serigne Touba waxoon ne rab rabbi stajib waltu kamin maana waytu lada Touba lati bikatum naa fii ko bu naa suñ borom dëggal na ko kon Serigne Touba nee na kon Serigne Serigne bi nee na président mi ngi lay sant bu baax ci si ci sa yéene jure ji ci dëkkam bi def nga ci li nga man ak li nga mënul ba yàlla sottal ko tey ndax lii keroog ba ñu tax xeer wa ñi ëpp ci nii yaakaaruñu woon ne mën naa sotti ci diiru juróom-ñaari kon nag bu ko suñ borom dogal lii tey woon ngaa sant yàlla bu baax kon nag la Sëriñ Tuubaa waxoon ne ku ma defal loo man ma defal la loo mënut ku ma defal loo mënut ma defal la jomb kon nag sëriñ bi nee na faaw mënee su laa ñàkk sant mënee su laa ñàkk gërëm kon nee na mi ngi lay sant bu baax ci turam ak ci turu mbooram jëbarug Sëriñ Tuubaa gi ak ci turu mboolem yoon murid mi ngi yeesalaat cantam gii nag ci liggéey bu rëy bii nga xam ne defal nga ko waa réew mépp nga ko defal waaye defaral nga ko Touba defaral ko waa Touba Touba nag bu ñu ko wax Serigne Touba moo tax kon euh, Serigne Touba kenn mësu koo liggéey di ko rëccu ndax moo wax ne képp ku ma liggéeyal binaa yashkuran wa azim qibali wa xidmatal ayaali turan aqbali kulli lasina ishtaxalo bi xidmati wa takfihim gadan eh, aza eh, ka sadmati waxoon na ne na nga ma defal képp ku ma liggéey suñu doon defal ko loo xam ne képp ku ma liggéey dana ko ci ñeeb faw loolu kon firndeel na ne liggéeyam bëre bi nga ko liggéey ci dëkk dëkk bu tëdd bi te muy jëf joo ne amul jenn jëf ci wàllu sànce yu nu toll kon sëriñ bi nee na ku jëfal sëriñ Touba sëriñ Touba am na pay boppam te sëriñ Abdul Ahad Mbacke waxoon na kulle geer Serigne Touba murid amana ne nañ ba faw ndax njabootu Serigne Touba gi duñu sakki jëf ndax hal jasaa'ul ihsaani ila al ihsan Serigne Touba dafa waxoon ci qasida ak haasa jasaa'ul ihsaani lil quddaami waqdi hawa'ij allasina damu fi khidmati wa hablahum maram yow sunu borom nga faj aajo kep ku juk ngi liggeyel ma te defal len senu bëgg kon nak Serigne bi na nga sant bu baax. te xam ne lii nga jëfal Serigne Touba mi ko mi tax nga jëf ko gis na ko yoon wii nag nga ñëw di ubbi si tey ji mooy wu njëkk wu am dayu bii kon mi nga ne ci ndokkeel ci liggéey bii ndax njariñu réew mépp la ndax day lëkkale fi sori woon di jegale di jàpp ndal dem gi ak dikk gi kon waa wa du waa dëkk bi rek koy jariñoo waaye réew mépp la jariñ kon ubbi nga tey bunt bu rëy te gaaw ci suqali réew mi te Touba gi mu jëm Serigne Saliou Mbacke waxoon na ne yaakaaru ju tas miinu ñëwul kër Serigne Touba Serigne Touba nag dëkkam bi wàccuwaay bi mu am ci dénn ak démographie ak ci koom-koom ba tax ñu war fee def sànc yu toll nii li ci jëkk moo dina Touba dafa am wàccuwaay wu màgg ci senegal ak ci àdduna bi lu mat ay millions yu bari seen yaakaar nekk fi ndax seenu sëriñ moo fi dëkk at mu nekk ay millions di fa daje bàyyi ko fu ne ci àdduna si Touba nag nekk ci diggu Sénégal di xoolu Sénégal nekk motoru Sénégal kon ku fi indi yoon wi daanaka lëkkale nga Sénégal yépp muy penk bi ak sow bi ak gànnaar gi ak Saloum bokk na ci li yombal jokkoo gi ci réew yëpp muy dëkk boo xam ne dana indi lu bari ci koom-koom réew mi ndax ay gor yu nangoo liggéey te ñu yor leen ci jàmm ak jom ak ñeme coono di demal seen bopp di dunde seenu ñaq ni leen ko Sëriñ tuba diggale wa talabul xalaali fardun yentami li kulli muslimin bi xayri wahmi am na benn borom xam-xam bu mag bu ñu wax Hubayriyaan wax na ne 1958 li nga xam ne moo ñor ci biir Sénégal ci réew mi ci wàllu mbay 60 pour cent yi muur di ñoo ko def nee na loolu nag day waral njàmbaar gi nga xam ne murid yi am nañ ko ba fii ne mooy njàmbaar gi nga xam ne am nañ ko ci ne bitim ak ñee seen ñee daan seen doole ci mboolem Sénégal yi lii lépp nag li ko ko mooy mooy nangu natt bu ko suñu borom dogaloon ci moom te nee woon yàlla suñu borom de ba ma koy liggéey liggéeyal jombaluma ko waaye ba may fay fooxaluma kon nag payoog yàlla amut fenn fu mu yem wala lu doomu aadama mën a xalaat ci xeram lu dul ne coobare suñu borom la kon bi Serigne Touba nekkee ci yéen Jolof ci loxoy tubaab bi commandant de cercle Goulouga dafa bind benn arrêté ci moom le 7 mars 1909 wax ne Serigne bi mayatuñu la lii la wër ci nekk dëkkuwaay bu mu weesu ñaar fukk nit ñi lay seetsi ci bis yi bu ñu weesu juróom fukk te dañu te dañuy ñaan permi doon a ñëw bala ngaa wubbeeti benn daara ngir jàngale da nga am autorisation bu jigee ci commandant bu tey ci tey jii fii ci Touba lu ma ñaari million ñoo fi dëkk fii nu toll li fi nekk ci daari alxuraan man na mille trois cent cinquante te bokkul ak école yi diine yi li fi nekk ci ay jumaa yu julli ay juma mën na téeméer ak ñaar ko li fi nekk ci jàkk ay téeméeri téeméer la mu jàngal nu wa man yatawakkal ala llaahi fa huwa hasbuhu moo tax ca njaareem bis commandant de cercle bi dafa ñëw wax sëriñ bi ne ko ñun de dañoo amu tey dangaa def tooñ bu rëy rëy ndax mboolem lu ñu mas lu ñu la masate ci nattu ay njort la waaye tey dangaa def loo xam ne yoon da ko tere ndax mooy ñii nga jële ay jaam murtani jën leen indi leen senegal sëriñ bi ne leen fa ma leen jënd de seenu tere indi àggagu fa bi ma leen indee fii itam goreel leen a tax tubaab bi ne tekk ba ci àgg mu ne ko yow de nii nga def bu ko ñëpp defoon ak njaab jeex ci àdduna mu ne ko man lu may doy ay jaam ndax ko gor yi nangoo doon sa jaam looy doy jaam mu ne ko ñun de dañu amul jaaxle ndax juróomi dërëm yi ñuy laaj ci impôt di ci sonal nit ñi di leen ci teg ay daan yooyu nanguñ ko jox yow nga laaj la ñaar fukki dërëm ak juróom-ñett ñu lay jëli ak di la wër te mënuñ làgg si la ko jox sëriñ Touba ne leen li ko wóotale de mooy yéen li ngeen di li ngeen leen di laaj laaju leen leen ko ngir yàlla. joxu leen joxuñ leen ko ngir yàlla yéen itam deful leen ko ci yàlla man nag li ma leen di laaj laa laajuma leen ko dama leen ko laaj ngir yàlla eh, di leen ko defal ci yàlla looloo ko wute la kon nag Sëriñ eh, noonu moo noonu ko suñ borom defaloon kon loolu moo tax lépp lu waaye ci moom ni nga ko bëggee ni la ko sunu borom di dogale kon nag sëriñ bi nee na mu ngi ñaan ci barke Sëriñ Tuubaa lii mu doon buntu xéewal bu dul tëjooti ba faw ci yow président yow mi nga xam ne yaa ko indi fii ci dëkk bi di la xamal ni itam sak cant ci moom nee na am na tàmbali waaye amut fu mu yem ndax nee na yàlla suñ borom dalaa boole moom jëmb jëkk muy toog ci jaatu bi sëriñ Tuubaa nee na nga def ko kilifa def ko sëriñ def ko waajur jox ko ab cër boo xam ne dara mënu ca dolli ko bi yàlla doogalee itam mu nekk fi sëriñ Tuubaa nee na nga yeesal loola feddli ko jàppaat ko yeesal sa taali bi ci moom lépp loo xam ne def digal na la ko itam amugu ci lenn loo xam ne defoo ko kon nag nee na sa digg moom cant gi am na fu mu tàmbalee waaye fu amu fu mu yem kon nag nee na mi ngi lay ñaanal ci barkeb Serigne Touba yàlla suñu moom jàppale la dimbale la ba mboolemu somb yu rëy yi nga xam ne am nga ci réew mi yàlla kàtt la ba somb yooyu yëpp nga àggale ko ba tëj ci bëtam nee moom ci boppam nag mi ngi lay sant ndax noonu la moo ko waxee ci làmmiñam ndax nee na ma li mu bëgg kat mooy ku ko ñaanal mu mottali ay yéenam kon nag faw ma ñaana ko yàlla dimbale ko mottali ay yéenam nee na li mu koy jeexale rek moom amul loolu Serigne Touba rek la yaakaar moom la am mooy léppam nee na jël na sa jëmm jii nag dénk ko Serigne kon bàyyi na la ak Serigne Touba wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.